yaakaar naa ne Youssou Ndour wéy na ko na waroo suuxlu waroo porté presse da nga war a bàyyi justice mu def liggéeyam liggéeyam fii justice def na ko ba mat sëkk bi ñu nekkee ci plein procès am Mbour et à Thiès mais dem nañ fi ci ñaari organe de presse def ay sorties dem wut ay xale dem ci àll bi neexal leen def leen ci ay camion ci ay euh, car ñu ñëw taxaw ci tele yi naan non fii ñoo ko moom ñun ñooy liggéey fii yooyu yëpp fokki na boobu justice atteegul pour influencer le procès mais mais le contexte actuel def nañ ko ñetti yoon ba ñeenti yoon mais bii li tax ñu génn mooy il y un nouveau contexte il un changement de régime qui s'annonce donc moom ci la bëgg a pour nëxal xelu ñi nga xam ne ñi ñoo war a ñëw ci nguur gi mel ni ñooñu ñoom amuñu xel mel ni ñooñu nekkuñu ci état alors que ñi nga xam ne ñi ñooy ñëw mais ñëpp xam nañ seen profil ay inspecteur des impôts et domaines loo lu mu xamul ci suuf mënoo ko ko jàngal ay juriste lu ñu xamul ci atte mënu ko ko jàngal alors dañoo bëgg a ya gëmloo nit ñi ne wéy ñoom ñu ngi bay ci benn tool ñu ngi employé ay nit kii dafa bëgg a ñëw yàq seeni pexe ma nga xam ni bii ñoom dinañ obligé dàq ay six cent sept cent personnes mais loolu ay naxee mbay la ko bu ñu fontoo ay naxe mbay la dégg nga munoo ñëw tëdd ci yëfu jàmbur nga tëdd ci yëfu jàmbur di fa vey di am ay millions oo benn société étrangère dama bañ rek ñu def un lii ak affaire u ndengleer du benn c'est pas la même chose kii benn société bu nekk bu nekk Hollande moo ñëw fii di fi béy suñu suuf dem kër jàmbur di fa béy toolu jàmbur mu fay béy fay ko ci ñaar dërëm depuis dix quinze ans te loolu dañ ko ciy topp pareeguñ ci moom depuis dix quinze ans il fait des chiffres d'affaires de des milliards et des milliards musu ci jox di exporter musu ci ñëw sax jox jaawaraan société nouvelle bi tey jii ba ñuy exécuter décision bi dañoo njëkk dem ànd ak les autorités compétentes je peux citer la DESCOS qui nous a beaucoup aidé ba ñu demee la société nouvelle bi les dirigeants dans leur générosité ñu gis ni sur les quatre-vingt-dix hectares y a quarante-cinq hectares yoo xam ne yi dafa amoon ay cultures yoo xam ne yi rek ñoraguñu eggaguñu à maturité bu leen bu ko neexoon mais dañ leen di génne dañu yàq culture yooyu ay oignon la ak yooyu te période boobu dafa tombe y avait un dérèglement du marché de l'oignon au Sénégal bu ñuy waaj a yegg màggalu Touba ba ñu demee waa nouvelle ville bi ñu gisee loolu ñoom ñu ñaan dañoo bëgg ñu may leen ba mois de février li may wax ni c'était au mois de juin commandement de déguerpir baa ngi nii may leen avec ak intermédiation de certaines autorités yoo xam ne ñoom dañoo fa lañ demoon làqatu ñooñu aussi nekk ay ñoo xam ne ñi ils sont raisonnables xamal nañ ko ne mais fii mu amoo fi dara mais nag pour bañ ñu yàq ay culture yoo xam ne yi mbay dafa barkeel ñu ne ko may mu ne nañ ko may ba février ñu ne ko d'accord may nañ la ba février ba fin février mu dem récolter ba pare xam nga bu récolter ba pare normalement dafa waroon ñëw nii seen caabee ngi nii defu ko alors mu profité nag ci changement de régime bi bëgg def de la manipulation manipulation mooy bëgg gëm gëmloo autorités yu bees yi wéy wéy wéy ñun daal ay victimes la ñu parce que kii daf ñu bëgg a jaay doole nangam nangam mais jaay doole amu ci ku dem tribunal ba gagné say procès nga jël avocat wut benn ñoom am nañ avocat bu mag maître Babacar Cissé maa ngi koy nuyu. mais moom xam na ni ay client nekkuñu ci dëgg def na lu mu mën ñu gañe ko donc ñu tenté de la manipulation looloo tax nag cooli bi mu jógee ñun tam dañoo amee mbokk bu doon ñun ak ñun rek duñ ko faale parce que ñun fi ñu teg suñu tànk dëgër na sur le plan administratif am nañu ay kayit yu leer su le plan judiciaire on a des décisions qui sont définitives et passées en force de choses jugées comme ni ñu koy waxee maanaam kenn mënatu ko kenn mënatu ci dellu si amatul benn recours possible mais mënoon nañ croiser suñu bras mais boo toogee dégg ñu lay kalti kalti kaltee ci médias yi di wax loo xam ne nii ni ñu ko teg ci fen ak ay manipulation alors nag bi ñëpp di wax ñu jóg pour leeral askan wi leeral ñi nga xam ne ñii ñooy les nouvelles autorités xam ne kii li muy wax du dëgg fu mu ñu woo dinañ ko wuyu fu mu woo dinañ ko te ñun tam dinañ ko woo foo xam ne fii dinañu wuyu si parce que la manière dont il a profité du terrain de la société Nouvelle-Ville dina ko fay moom ak ay partenaires hollandais ces partenaires hollandais sont là le représentant de la société il s'appelle Maguette monsieur Maguette Dia dama koy tuddu parce que dañuy dañuy dañuy tudd monsieur Diawara ak Frank Frozen nga xam ne c'est un hollandais ñoom ñaar ci seen bopp dinañ leen woo foo xam ne fii suba ils seront obligés de répondre parce que malgré le l'intervention d'une décision de justice ils continuent toujours à occuper le terrain bi nga xam ne bii la société nouvelle ville moo ko moom donc il faut ñu ñu taxaw ñu bàyyi manipuler di jéem a dox ci xelu nit ñi fii Sénégal kenn mënul nax kenn ko ëpp mbokk mënoo ko jëw moom si boppam mais écoute ba mu tolloo jéemoon na wut ay prox ndoll pour waxtaan ak ñun lu tax continuer wut doon na jéem a wut ay pour pour waxtaan ak ñun pour xool ñun nan lañ koy dimbalee mais dafa am après beneen pexe bu mu doon jëm moo tax ñun ñu bañ nekk te loolu yëpp c'était pour nous endormir pour jéem a dem wut ay këyit mais ba mu demee ñu gëmloo ko ne benn terrain mënul am ñaari nikat benn terrain mënul am ñaari boo benn terrain mënul am ñaari état de droit mais ci la xam ne pexe jeex léegi nag li tax tey jii muy jóg di daw c'est parce que délai bañ ko joxoon jeex na ñun on est mobilisé pour génne ko fa à l'amiable ou par la force parce que les décisions de justice sont faites pour être exécutées par la force mu ngi nii décision de justice boo gis am na li ñuy tuddee formule exécutoire formule exécutoire mu ngi nii maanaam juge bi àtte bu àttee ba pare danaan maa ngi maa ngi oo di wax di jox ndigal képp kuy huissier képp kuy gendarme képp kuy policier bés bu la borom décision bi laajee pour nga dimbali ko pour ñu exécuter ko da war a dem donc tey ji li tax muy tëb di dal xam na ne dootu fa toog la ko fa dese bariwul moo tax muy tëb di dal mais li wolof njaay di wax fët fët tàggalewul mbaam ak ay noppam donc enfin loolu laa ci bëggoon wax ci gàttal débat bi war xaw na gudd mais woon sax gudd parce que leer na wasalaam Thank you.